APR ñoom posé nañ seen ay armes euh, fas yéene sax ànd ak ñi nga xamante ne ni moo di yeneen député yu fa nekk ngir mën a saytuwaat règlement intérieur bi. est lu loo dugal ci teen bi génnee la la boo kontaanee lekk ba suur sa yaay jox la ceeb ba mu neex. nga dem sauté dugg ci teen bi nga xamante ni trente mètres la profondeur. Mhm. est-ce que loolu cawarte boobu génnee na la ci biti. déedéet. Euh, problème mu règlement intérieur bii. procédure d'urgence session extraordinaire session ordinaire moo ci yem mhm. naa la wax coono bi mooy problème bi mooy régle bu bon moo tax règlement bu bon mhm. moo tax crise bi ñuy wax entre guillemets te sotteegul te dina am ci kanam tuuti ngeen gis ko mhm. règlement boobu moo ko jur suñu toogee tey ba le huit Ousmane ko deful déclaration de politique générale règlement intérieur boobu moo tax. parce que bu doon baax na def na ko ba mu mat au moins euh, tey le huit tey le neuf def na ko ba mu mat au moins sept jours une semaine déjà parce que mardi tey bi la ko waroon def mardi pa tey bi bii passé la mat la mat. trois quatre-vingt-dix jours. donc ñi nga xam ne ñooy député yi seen liggéey bara baaxu ci danoo jàdd à côté. ñooñu bu doon réewum Sénégal dañuy def comme bene le député béninois lu ñu koy fayee dañ koy fay salaire am indemnité lañ ko tuddee selon moom jour yi muy siégé. Mhm. maanaam bu absenté salaire am dafay wàññeeku. bu ñëwee mu normalement trente mois trente jours plus tôt ñu fay ko salaire indemnité normal mhm. indemnité mensuelle. donc ñun député yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu ne cent cinq lan ñu toog pendant deux ans réglé ñu règlement intérieur ñu daan ñu xaar ba mu jàmp ñu taxaw fi naan procédure d'urgence d'accord. mais ils ont fauté ils qu'ils l'admettent parce que dès l'instant ñu nangu rek def procédure d'urgence rek pour ñu jagal kon xam nga ne kon yàq yow ab lu yàqu lu bokk nga si mhm. maintenant ils reconnaissent d'abord leur faute ils sont fautifs mhm. et ils ont manipulé la loi et c'est des manipulateurs de la loi c'est des fraudeurs député yi yëpp lay wax waaw pour que loolu laa bëggoon ñoom booy wax député yi day mel ni que mu nekk majorité bi ak opposition bi yëpp nga boole ci léegi quand je dis député yëpp xam nga 165 la. amaana am na ñoo xamante ni xamoon nañ ne baaxul mais dañ koo kaas mais ñoo da leen fi génne daal booy booy wax da ngay wax ak ñëpp. majoritairement. léegi nag am na ñoo xamante ni ils sont de bonne foi et ils ont compris et waxoon nañ ko damay wax Guy Marius Sagna dafa taxaw ne. règlement intérieur bi baaxul avant Amadou Ba di def déclaration. Mamadou Lamine Diallo waxaat ko. avant muy def déclaration am ñeneen nit ñu ko wax Doudou Wade mii père. président da ko wax waxaat ko faalewuñ ko. tey mhm. ñu xaar ba tey ñu def projet de décision dañ ko def d' accord waaye délai bi passé na 90 jour passé na 92 jours mat na depuis le 2 tey le 8 teg na une semaine. Mhm. léegi bu ñu ko tegee léegi su boobaa aussi débat buy posé waat mooy est ce que loi bi dafay rétroagir wala du rétroagir rétroagir mooy dañuy commencé di compter 90 jours yi à partir jour bi nga xamante ni moom la règlement interne bu baax. Mhm. wala dañuy commencé rek. ñu ne non garaaw nañ ko nañ ko nañ ko euh, fàtte léegi réglement bi baax na léegi na ñëw ñu jàpp dat ñoo tax beneen débat la même boo ko defee. Mhm. ñu ngi naan dañuy def ce qu'on appelle une loi bi révision constitutionnelle bi empêcher le président de la mu am pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. peine mhm. perdue juridiquement parlant c'est peine perdue. mënul nekk du sotti maa la ko wax fii du sotti xamul du sotti. Mhm. article 103 moo ne. l'initiative de la révision de la Constitu Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés. Mmh. Mais cette révision disposition boobu dafa am lu ñu tuddee pouvoir discrétionnaire président rek moo ko am ci Sénégal moom mooy xool ndax révision boobu bu dee dafay am nan lay amee benn ñaar. moom mooy xool est-ce que révision boobu buy am. dañ koy jaaral ci assemblée nationale wala dañ koy jaarale ci référendum su boobaa politique bu dee dañuy ne politique du ko jaarale ci assemblée parce que bu demee assemblée on dira que trois cinquièmes des cent soixante cinq ñoom ñoo koy voté soit quatre vingt dix neuf bu ñu ko voté day jàll mais loolu du problème. kon bu ko neexee président dafa am pouvoir discrétionnaire mu ne léegi du jaar assemblée léegi dama koy jaarale référendum mais référendum résultat bi am cinquante neuf virgule huit est ce que jàpp nga ne bu demee référendum ñooy dañuy continuer ne non. mais dañuy dañu dañuy dañ koy yeesalaat dañuy defar wuy et bu ñu defee wuy également dañuy teggi na le li ñu tuddee empêcher le président de dissoudre l'Assemblée nationale au mois de septembre donc dans tous les cas les députés là mën nañ compter seen salaire de bu dee danoon leboon laa wax <laughs> ndax lu ñu nekk député mhm. Sénégal mun nañ nekkaat mais session bi moom législature bii guddul fan lu ko teree tere lan juillet août septembre ñaari weer moo leen dese parce que cohabitation mënul am bu mu amee président de la république et son régime du ñu liggéey parce que liggéey bi mooy puisque ñoom ils sont 83 quand je dis 83 c'est juste un groupe parlementaire benn ci opposition ñoo am 83 députés ñoo ko composé. PDS fan la ñu bokk opposition la pouvoir. opposition. Euh, Thierno Alassane du opposition. Mhm. waa taxaw du opposition. Mhm. boo leen boolee ñëw ëpp fuuf député pouvoir bi. Mhm. donc ñooñu bu ñu demee assemblée yóbbu fu benn projet de loi bu dee dafa war a jàll bu ñu waxee no du jàll même bu dee baax na te député yi ñu bëri defaluñ pour réewum Sénégal ah seen intérêt la ñuy taxawal ah. député yi ñoo taxaw fii Macky Sall dafa leen projet projet de loi mu ne leen voté leen ko comme ça ñu jox ma pouvoir ma mën a dissoudre assemblée nationale à tout moment quand je le même su ma naanee café Marème ne ma Marème mooy café bi neex na rek nga ne ko woy je dis sous l'Assemblée nationale député yi ne ko mukk c'est la première fois depuis de Sénégal depuis 2022 mhm. moo su ñoo yóbbu benn projet de loi ñu rejeté ko waxuma la waxuma la proposition de loi projet de loi lu Macky Sall indi mhm. ñu bañ c'est la première fois et loolu soo gisee ñu bañ mhm. parce que seen intérêt la ñu woon parce que jamono jooju bu doon am na jour bi Macky Sall reporté élection yi coow li commencé bëri jour boobu commission parlementaire xaw ma jour boobu lay tas assemblée bi mais bu ñu xamee ne bu ko tasee loolu ñoom dootul nekk député. Mhm. ci lañ ne président nag suñu bopp sama bopp moomu la gën a lu bañ naa la. Mhm. bëgg nañ la lool waaye ñu député yi tamit danoo am bor te bu ñu te loolu lañ fa wax. danoo am bor moo tax bu ñu tasee assemblée bi du ñu mën a fay suñu booree kon bàyyi ñu doon député. Eugénie bien est-ce que loolu ana lay ana intérêt Sénégal fii. Hmm, amul yow nga dem lebi après ñu fay la. te yow lu tax ngay ñu lay fay sa liggéeyoo ko après ngay absence lu la neex nga def. Hmm? Hmm. nga def ay faux moo tax bu ñu xas élèves yi ku fi xas élèves yi nañ wax ak yow <laughs> de faux député gis nañ ko fii waaw yi def nañ fraude léegi l'élève qui triche la ñu koy yuuxu di ko jaabaa jolle élèves yi député yi dañuy frauder. gis nga yow gisay faux faux député. waaw amoon na fi de. duggoon na fi noonu. <laughs> monsieur Tete bu fi kenn xas élève maîtrise. doy na waar lu toll ni assemblée nationale ku fa bokkul. deuxième institution du Sénégal. deuxième institution c'est la deuxième institution de la République du Sénégal. après la présidence de la République c'est le président de l'Assemblée nationale. Mm si le président de l'Assemblée nationale président de la bu waat le président de l'Assemblée nationale même bu fekkente ne dafa bokk ci parti politique opposition bi bu gën a farouche. Mhm. dafay dem fekkee parce que c'est la deuxième personnalité de l'État kooku institution boobu ñi fa war a nekk dana war a nekk ci sérieux mais waruñu am image yu change entre guillemets maanaam nga def yëfu yëpp loo def du yëfu nit mais yëfu golo la ay loolu dañ ko war a lijjanti kon tey jii da nga jàpp ne waa député yu APR ñoom wala yu bennoo yi sax ndëgg sarax la ñu tegaat parce que bu ñu ñëwee bëgg ñëwaat ci réglement intérieur bi defaraat ko Euh, ak temps bi nga xamante ne nii def nañ ko yépp wala ñoom leen ñor rek kon euh, fexe ba indi loo xam ne duñu mën a dissoudre assemblée bi la. benn lenn pour l'instant. Mhm. député APR yi. Mhm. ñu ngi dañuy concentré wu ci règlement intérieur bi. Mhm. bàyyiwuñu de dañ ko posé dañ ko teg. maanaam révision constitutionnelle bi dañ ko teg mais nee naa la foofu juridiquement parlant du sotti. je pense que président de la République Bassirou Diomaye Faye dina yore paaka buy rendi boppam. rendi boppam mooy. bu waxee ne par exemple même si le pouvoir la constitution article 103 dafa maa jox pouvoir discrétionnaire mu ne ko léegi léegi waroon naa décider su mu jaar référendum bu ne dañ koy modifier constitution bi léegi jox naa leen ko na jaar assemblée. Mm-hmm. te moom moo gën a xam assemblée nationale les députés de Benno ils sont au nombre de 83 te loi bi daf ne pour nga mën a def révision constitutionnelle jaaree ko assemblée nationale il faut nga am 3 cinquième. 3 mm-hmm. cinquième mooy 99 députés. Mmh. wàllu euh, plutôt ñii Benno am nañ 83. léegi pour nga am 99 députés loo ciy teg 83 plus 7 c'est 10 nga yor ci beneen 9 muy lan donc dafay doon 16 députés. 16 mm-hmm. députés la ñu manqué loolu dañ koy tibb fële négocier ko fee mën nañ ko am. mais mm-hmm. risque boobu président di ko courir xanaa. Mm-hmm. et su boobaa boo ko couriree mooy que ne donc lu ñu tuddee. article 57 80 euh, oui 85 87 bi wax ne. le président au bout des deux ans pour dissoudre l'Assemblée nationale, mmh. après avoir sollicité l'avis du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre mu tas ko et su boobaa loolu muy tëb loolu moo fi ne moo fi du nekkati donc su boobaa bu fi nekkatulee septembre bu jotee quel que soit lu ñu def comme comportement munoo ko dissoudre parce que day fekk li taxoon nga am pouvoir dissoudre ko tëb na mais mhm. président du def loolu mhm. léegi na moo tax bennoo li ñuy def nii euh, loolu Sonko la mhm. mais pour euh, projet proposition pour dissolution Mm-hmm. nga bañ am pouvoir bi loolu ñoom ak président la. Mm-hmm. et loolu président de la République ne va pas parce que moom tamit dafa am arme ñii dañoo am arme moom arme te ils sont en mm-hmm. kenn du bàyyi xanaa tamit ah, lu mu neex neex instant bi ñu ngi lii neexalaate la naan dañuy modifier règlement de pour ko ñëw mooy neexal bi. mais bu même loo neexal neexal. ñee xam na ni wiri wiri fee nga jëm mais fee blende. doo dugg. waaw c'est vrai kenn du jël paaka bi lay reene jox sa noonu euh, voilà euh, Chérif euh, tey ji li nga xamante ne ni moo xew ci assemblée